et puis pod euh, daf ñu fekk si euh, moom euh, dafa am liggéey bu am solo boo xamante ni moo ngi koy def ci série bi puisque yaay directeur arti artistique bu Marodi ku ne xam Marodi Marodi li muy def fii ci Sénégal balaa ñuy waxtaan ak Oumy nañu wane bande annonce su série bi Karma qui arrive Karma voilà ça arrive sur télévision Futur Média regardez 13 avril 2015 àdduna du dox bu ma fàtte bés bi ma la ñàkkee. ana looy wax nii ana man dama laa soxla. teewul maa ngi jéngu ndax sa jëmm ji yow jant bi leexal sama dund sama aana. c'est comme ma maam mi ngi lay jooy ba léegi sunu ay xarit ñu ngi lay bàyyi. dundaale seeni mbëggeel. salaamaaleykum. Tes parents, ils ont réagi comment à l'annonce du mariage Pas bien tout. Bébé Yaman. Bébé, arrête. Arrête. di dundaal seeni tiis di dundaal seeni sikki sa diggante ak Bachir. qu'est-ce qui se passe. je crois qu'il me trompe. Léa, laisse-moi te déposer s'il te plaît. am nga sa famille bu nekkee nag pare woo pour assumer ma garder ses distances man ak Anna soxlawuñ la. ta maman elle est là. bien sûr. où veux-tu qu'elle aille. d'ailleurs je pense que tu devrais la faire sortir de temps en temps papa. oui ma Anna tout allait bien. j'ai tenu comme je t'ai promis jusqu'à ce qu'il apparaisse dans ma vie. Ami la timide. bonjour c'est Ami. Enchantée Ami. som ett piller noe hod. Merd! ne mari li sama ndey ah! yaa Majib dafa jóge ba Paris ñëw fii waxtaan si ak yow ak sama papa. yow ak Majib foog ngeen xaar. ak doon Majib Kébé. Ah. Léa ça va. pardon. Léa. Euh, Ami xam nga lan la may. réfléchir naa bu baax. le gars il est dangereux nday maxi mënul nekk ak moom. toi tu t'es cru dans un film ou quoi. c'est nii avant bu jigéen et bëggoon naa de tout mon cœur et aujourd'hui ma chère Anna je te fais une nouvelle promesse je te promets que vengeance sera faite. là l'actrice principale Oumy euh, s'appelle-t-elle Oumy ñu ngi lay nuyu merci d'être là da nga stressé ak li nga joué yëpp xale yi xale yi garaaw nañu de joué joué lu rëy lii ba pare dafa stressé nii ci plateau bi alors que plateau plateau tournage yi moo gën a moo gën a moo gën a metti Pod yow tamit ñu ngi lay nuyu merci d'être là euh, bon on va laisser le le le soin à Oumy mu souffler. xam nga nooy tuuti euh, ñu njëkk a tàmbali ak yow euh, euh, comment naka la série bi juddoo Karma. voilà ak lan mooy karma. voilà donc karma ça va le karma série la boo xamante ne ñi am na ñoo xamante ne xam nañ ko déjà en tant que chronique. Ah. waaw chronique la woon donc afi euh, ko xamante ne scénariste la moom moo bindoon chronique bi donc mu nekk chronique boo xamante ne waa genre Colomba Ndiaye yi nga xamante ne am nañ di seetaan chronique xam nañ ko bu baax quoi. d'accord donc ñu apprécier woon ko mu amoon vraiment succès mais dañ ko jëlaat def ko série. Mm. mais pour def ko série nag nekk na loo xamante ne liggéey nañ ko ëpp na un an. Mm. boo xamante ne scénario bi la ñuy jëlaat di ko defaraat di ko defaraat quoi c'est bien toggaat ko bu baax mm. également tamit pour casting bi mm. casting bi tamit waaw jël nañu lu ëpp un an yoo xamante ne juste moom rek pour rôle pour trouver ko waaye def nañ casting boo xamante ne blessé nga ñu am plus de 2000 personnes gisuñu. Ah personnage oui da ngeen am 2000 parce que léegi tendance bi mooy. animé télé wala jeu série. exactement exactement donc ñu wër ko wër ko pendant lu yàgg mais finalement ñu ñu ñu mujjee ko jël moom déjà am na expérience ci Golden après ñu jël ko ci série bi quoi. Karma lan la c'est un nom c'est c'est quoi. non wala nii boo xamante ne bon ak euh, scénariste bi moo ko tuddee woon chronique bi. Mm-hmm. donc euh, am na histoire vengeance ci biir mm-hmm, mm-hmm. donc surtout loolu moo gën a tax ñu. tuddee donc actrice bi ci boppam moom moo tudd non non l'actrice s'appelle Ami ci série bi. ci série bi uh-huh. waaw donc. Euh, donc histoire bi moom ça tourne autour de moom mais am na tamit également yeneen histoire ci biir. yoo xamante ne waaw donc. série la boo xamante ne man lu may nekk Marodi yëpp man gëm naa ne bii ni ñu ko préparé mosuñu ko préparé benn série. Mhm, mhm. vraiment donc euh, affiche yi wane na ko. Ah, et surtout tamit casting bi quoi. Mm. pour man mooy point fort série bi. Ah. waaw c'est vrai que série bu ñëpp di xaar la euh, Oumy yaa ci joué rôle Ami actrice principale bi. Euh, raconte-nous sa histoire ak ni nga bokkee ci ci série bi ba war a nekk actrice principale série bu toll nii. tout d'abord mhm. dama joué woon ci Golden ba pare après donc euh, foofu foofu lañ la Mm-hmm. donc am naa si toute expérience et tout ça. Mm-hmm. donc je peux dire que méttiwul daal. Mm-hmm. voilà. Thioro. Euh, nga joué série boo xamante ni euh, comme ni ko Pod waxee léegi déjà chronique la woon ñu wax ko traduire def ko film peut-être dina am yoo xamante ne comme on dit qui traduit yi euh, sûrement yooyu noonu yëpp préparer nañ la ci mais yow tey boo nekkee actrice principale série bi ñu gis la nga joué ak ay grands noms comme ay Ndeye Mour comme ay Diewo par exemple parce que gis leen ñoom ci euh, série bi euh, en tant que jeune tey loolu lan la lay def. ça me fait plaisir. Hmm. <laughs> d'accord euh, jigéen nga xale nga dugg ci beneen expérience su àdduna boo xamante ni parce que ku wax série wax média wax quelque chose comme ça xam ni que da ngay exposé est-ce que ñu ngi lay préparer ci tout ce qui peut t'attendre parce que célébrité yi tamit dafa am rançon. Hmm. bon tout d'abord waa Marodi bàyyiwuñu ma benn yoon à chaque fois ñu ngi sama ginnaaw jaar yi defal lii defal laa ak suñu waa kër sama yaay tout donc mun naa xam ne côté boobu moom fekk ma si macha allah. Euh, encore dañu lay encouragé surtout li ñuy wax ci ndaw ñi ci côté cinéma côté Sénégal ak ni euh, xam nañ ni début bi yombul woon ba fi mu yegg si ak Morodi en tant que directeur artiste wax nga lii ci chronique la jógee est-ce que mën nañ xaar ci yeneen histoire ndaxte actuellement tendance la ak euh, Netflix bi nga yu boo xam ne am na ba pare lu ñu bind ba pare wala histoire vraie ñu benn film est-ce que ni mel comme li nga expliqué ci Karma ni mu nekkee woon chronique après ngeen euh, yóbbu ko film effectivement soo gisee sax soo xoolee euh, ñun actuellement biir Marodi dañuy tendre sax vers ça parce que souvent histoire boo xamante ne chronique la mhm. dañ ko bind ba pare dafay am benn fil conducteur souvent mhm. te ki xëy bind du am dara lu koy détourner si écriture bi c'est-à-dire bon du am business moo xëy moo ko yóbbu donc histoire boo xam ne tourner si xol voilà en toute liberté mhm. donc loolu soo ko jëlee day am benn authenticité léegi ñun loolu nag la ñuy jël am nag lenn nag yu ñu si parce que souvent bon du œuvre yëpp ay parfaite mhm. mais ñun à chaque fois dañuy suñu jëlee euh, œuvre bi mhm. dinañ xool naka lañ koy parfaire ba scénario bi euh, jaar yoon quoi donc soo xoolee sax maîtresse d'un homme marié tamit chronique la woon mhm. boo xamante ne ñun ñoo ko def film en même temps donc comme karma bi donc am nañ expérience bi ci maîtresse donc bii tamit également karma bi euh, tamit même chose la quoi te moo nar a dax et certainement bien sûr dina am yeneen euh, yeneen série yoo xamante ne ci histoire vraie artistiquement Pod lan mooy nar a marqué un peu différence bi parce que dañuy gis am na série yoo xamante ne euh, da ngay gis ñoo xam ne dañuy joué ci africanité bi joue ci teint yi ñu joué ci solu bi joué ci coiffure yi ak yu mel noonu te jàpp nañ ni aujourd'hui yéen a ngi ci élan wu jaay tous que euh, Sénégal lu mu am euh, comme ay valeur lu mu mhm. am comme ay endroit yu baax lu ñu am comme ay habillement ak yeneen ak yeneen loo xam ne mooy tax moo ñuy wutale ak tubaab bi wutale ñu ak Netflix wala quelque chose comme ça artistiquement est-ce que am na loo xamante ne dina mën a différencier xëj na euh, Karma ak yeneen séries yi comme Pod Marichou wala même ci yeneen maison de production yi effectivement bon loolu sax je pense que tey réalisateur bi daf siy liggéey lu lu parce que soo xoolee affiche yi sax par sol li nga xamante ne même ci seen habillement yëpp couleur yi dañ siy bàyyi xel bu baax. Hmm. donc côté africanité bi dina feeñ effectivement mais tamit foog mu moderne donc foog mu moderne ba nga xamante ne ñun dinañ ko mun seetaan. Hmm. Afrique yëpp ak monde entier. Hmm. dinañ ko mun seetaan quoi donc euh, pour que ñëpp mun si gis seen bopp moo tax foog mu international. mais Karma comme li nga authenticité bu mu am. boo xamante ne am nañ expérience bi ci maîtresse boo xamante ne dañoo joué woon ci africanité bi donc mu nekk benn partie mais également ci côté décor yi mais surtout aussi casting bi man quand je dis karma su ma xoolee casting bi yàq naa ne mooy série bi nga xamante ne gën nañu réussir si casting bi. bah oui y a de grands artistes exactement mm-hmm. surtout ay retour ay ñoom. Euh, Ndeye Mour mm-hmm. ah également par exemple Grand Laye bi nga xamante ne joué na si ah, Idole. voilà donc également soo gisee sax famille yi. da ngay jàpp ne lii famille dëggantaan la. Mm. à chaque fois que ñuy présenter euh, famille yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir série bi. et également tamit histoire bu ci nekk ci dans chaque famille da nekk histoire bu profonde da doon histoire bu terre à terre. wala loo mm. xamante ne bon dañ koy tàmm di. gis tout tout le temps mais am na benn profondeur boo xamante ne scénariste bi. ko si dund quoi. différence su ñaari génération yi yomb na ngeen joué leen parce que ñii ñuy soog a ñëw lañ ñoo xamante ne peut-être kii par exemple euh, euh, ummi ci benn série rek lañ ko gis muy Golden. Mhm. ñu gis ay visage yu bees yoo xam ne kenn war masu leen xam nga war leen joué ak ndey muur nga xamante ne par exemple expérience rek la macha allah jeewoo euh, est-ce que dina yomb ngeen mën a def jonction wu ñaari génération yi. effectivement bon yaakaar naa loolu mooy charme bi soo ñu ci mel ni ay jeewoo parce que ñoom ñoo war a accompagner jeunes yi. Mhm. déjà ñu ci mel ni par exemple Diarratou moom su toogee di jouer ñoom loolu yaakaar naa ni da koy gën a booster. Uh-huh. mu nekk ak ñoo xamante am nañ expérience ñu koy accompagner mu mu leer ko ne mi ngi tegu si yoon quoi. Uh-huh. donc et je pense que mag ñi sax ñi nga xamante ne nekk série dañ leen di bàyyi souvent liberté ñoom ñuy waxtaan ak jeunes di leen wax exactement di leen wax fii ak fii ak fii nga war a jaar parce que. dañ tàmm dellu leen di seetaan même ñu naa ay jéew man dama yàgg di tàmm di ko seetaan doon réewe naan kii est-ce que du mës a sax nekk sama yaay ci benn sëy mais tey ma ñëw gis ko nii ñuy liggéeyandoo ensemble mu nekk loo xam te ñu plaisir la si ñun quoi. ok voilà donc série bi dina jàll ci euh, télévision Futur Média à partir de ce 28 chaque mardi ak samedi euh, lay jàll ngeen mën koo seetaan Karma la tudd tout le monde attend sa alors ami euh, Oumy lan mooy ban message ngay jox téléspectateurs yi sénégalais yi ci xaar bi ñuy xaar Karma. lan lan nga leen di wax sa sa fans yi les gens qui t'admirent et ceux qui attendent ñiy xaar série bi actuellement. bon série bi c' est vrai que genre nit ñaa ngi koy xaar parce que affiche bi mu génnee Dakar yàgg na tout ça mm. mais duñ leen décevoir. Mm. ñoo ngi ñëw daal xaar leen merci beaucoup. mais voilà on est content en tout cas merci. Euh, Baye laa ci bëgg a yokk. demal demal Mbaye demal teewaayu jeewoo ak euh, Ndeye Mour dañ ci am responsabilité bu mag ñoom ñaar. Mm-hmm. parce que tey ñoom ñooy magu série bi. Mm-hmm. moo tax lépp loo xam ne lii dafa war a génn. ci li ñu war a càmbat te mu war a tegu ci yoon. Hmm. ñoom dañ ci am part de responsabilité. parce que ku ne xam ne dégg na série yi dañ ciy indi ay kàddu yu nekk. Hmm. mais comme nag ñooy magu série ba. Hmm. na leen xale yi déggal. ba ñu ne daal lii daal dëgg-dëgg warta tege nii nii la war a tege. ñoom tam nañ ci bàyyi xel. loolu daal à Sénégal yi ñu ngi koy attendre. di wax tam baatu karma tamit na nga lijjanti ba xam karma bi lan la. c'est très normal. nit ñi xam karma bi c'est quoi. parce que le mot karma. qu'est-ce que ça lan lay tekki karma. waaw bon euh, je pense que karma en fait bi moo tur boobu la jox série bi. donc. Euh, euh, mais kooku da nga koy demandé. moo nekk ah. parce que xam nga sànq léeg-léeg ma ne dëgg de ku lay karle daal ba nga jàpp. Mhm. ku lay karle. daal bëgg nga jàpp. waaw mën nga ko jëlee noonu karma waaw karma karma ku lay kare daa bëgg nga ah. jàpp. c'est important. Ah. kooku nag dëgg rek dañ ci bàyyi xel. voilà c'est c'est pas gratuit. vas-y ah. vas nit ki lu bon nga dem ba si biir après loolu dalaat la. ah loolu mooy karma. rattrapé par mm-hmm. mooy karma wala sa passé mbokk. lan la wolof la wala ban làkk la ah wolof la sa passé yaay wala sa passé quelque chose par exemple bu ñu ko jëlee ci exemple maîtresse d'un homme marié. karma moo jàpp Jalika. c'est en fait c'est maanaam lu amoon ci fenn après mu ñëw mu retourné ci yow waaw a mën a expliquer hmm. ko da koy wax loolu da koy wax loo def rek day retourné waat waaw Assane moom ma ngi seetaan réglé rek lañ koy wax seetaan muy si film yi wala yeneen téléfilm yi wala télénovelas yi ba si Nollywood defe na noonu la ñu war a jël pour dundee ko hmm. or que du noonu parce que nit ñi jàpp naa ne théâtre yi ñuy joué ak téléfilm yëpp c'est pour éveiller les consciences hmm. yéen nit ñi mais tout en prenant en compte xam nga nos réalités socio culturelles religieuses hmm. loolu tamit dafa nekk la nga xamante ni lu ama am solo la tudd nga fii ndey muur tudd nga fii jeewoo boo jëlee bu njëkkoon bi ngeen a nekk xale di seetaan jamonoy tey wala daaray kocc comme ni ma koy waxee di nga reetaan di nga triste di ci si jàng te doo si dégg benn kàddu wala jëf ba nga xamante ni bu déplacé la moo tax souvent ñooñu comme ni ko El Hadj Mamadou Mbaye Garmi waxee bu ñu joué si tel film yi dañ si am part de responsabilité bu ama am solo la mm-hmm. mais yéen ñi jeunes yi nekk si waaw mais yéen ñi jeunes yi nekk si film yi di ngeen si am part parce que ko TikTok nit day seetaan toog. geste euh, wala mu seetaan. Euh, euh, soxna ummi. genre defe na li ñuy wane si film bi. loolu mooy réalité. Mm. léeg-léeg nga gis nga xamante ni niveau de vie bi ñuy dundee si téléfilm yi day élevé ba nga xamante ni xale yi koy seetaan dañu jàpp ne dañu war a xëy laal benn. 4-4 comme ni ko pot di defee wala dëkk si benn appartement IP quelque chose comme ça mm. te loolu dafa nekk la nga xamante nii du noonu mm. jusque comme ni ngeen tuddee téléfilm bi coro tekki ko karma mooy lit looy def bàyyil xel ëllëg dafay ñëwaat mooy li ngeen di def nii aussi yéen da ngeen di bàyyi xel aussi si karma kar leen ëllëg waaw <laughs> c'est très important bu mu leen kar ah, ëllëg en tout cas yi commencé na te te bi commencé gul man nag man man ku mel ni man mën na leen suivre seetaan leen hmm. c'est juste que parce que comme ni ma koy faral di waxee penc mi ñun ñëpp ñoo ko bokk hmm. te lépp war nañ ko mën a waxtaane mën nañ leen seetaan ngeen def la nga xamante ni dana yee xale yi teg leen si yoon jubbanti leen mm. mais comme ni ñu ko waxee rek lépp mu nekk la nga xamante ni tamit day tegu day si yoon parce que tey jii nii am na ñi nga xamante ni joué nañ fi démb la nga xamante ni bugguñu ñu tegal leen ko tey ah, waaw jeex ndax ay kilifa la ñu tey njaboot nañ te am na lu bëri lu nekk seen gannaaw loolu aussi dafa nekk lu jël bàyyi xel te te te te le ta ta le 28 le 29 Jamra Diop. ten ten ten ten non je blague ah. et c'est bien c'est lii mooy def charme luy cartonné. voilà avis yi euh, ku nekk ak sa bos. xalaat yi ku nekk ak sa bos waaye bàyyi leen xel itam ci ni jamono bu ne ak la cay xew. voilà jamono bu ne ak la cay xew xam nga boo demee Netflix doo fa gis lu de finesse. déedéet ñun ñu fekkee Louis de Funès on demandera aux acteurs de de dynastie de faire comme Louis de Funès waaye xale yi consommé boo leen tegalee <laughs> Louis de Funès ñu euh, donc Oumy mi elle dira bi ma demee TFM fekk naa fi benn oustaz muy wax genre. xam nga mais bon euh, euh, genre quoi mais bon c'est pas grave toute façon euh, loolu la ñuy xaar ça va cartonner incha allah le 28 lay tàmbali euh, mardi ak samedi euh, ci télévision Futur Média quel sera le mot de la fin lan nga ciy teg pour ñu jeexal pour rendez-vous bi. dinañ jox également aussi di rassurer tamit Oustaz nu mu ko waxee euh, parce que ñu tey ak expérience bi ñu am même tey mhm. jii nii am na je pense non na choc na danse ñu waaw non dina ah, danse dina danse kon dogguma la xam nga doom moom loolu maa ngi koy wax sànq dama seetaan benn vidéo mhm. ñoo xam ne dañu joué théâtre mhm. am ku toog bugguma tudd tudd tooñ mais nit ñi nañ xam li ma toog am ko mu toogal naka l'islam ba ñu nga boole ñaar ñu bokk ndey ak bàyyi di séyandoo ak ñoo takk leen démb si ñaari séquence si benn téléfilm ya nga xamante ni bokkul hmm. te loolu diina mayew ko ngor mayew ko hmm. boo demee si alxuraan yàlla dafa lim ñi nga xam ne daganul nga sëy ak ñoom hmm. te daf si bokk ñaar ña nga xamante ni ay sœur lañ kenn du leen boole si sëy mën nga sëy ak nit mu génn àdduna nga takk sëram loolu l'islam may na ko mais ñaar ñu bokk di ay mag ak rakk kenn du leen boole si benn buum loolu loolu kenn du ko def dafa xaraam yu mel noonu. moo tax ñuy ñuy ñuy ñuy mais en réalité boo xoolee ak ñu wax ak ñu nga xam ne li ñuy wax xamuñu ko. Mm. donc lépp séquence scénario bu mu war a doon rek ñi koy jouer dañ ko war a maîtriser ba duñ si wax la nga xamante ni xëy na day xew a këfin. effectivement mooy comme yow rek ñun lu ci bëri loo xamante sax nekkul trop suñu domaine dañ siy gëstu ba mu leer ñun soog ko jouer et je pense que dem am leen loo xamante ni dina choqué wala dara parce mm-hmm. expérience bi ñu am ni si côté production yaakaar naa ne mën nañ jaay suñu film sans ñu choqué nit ñi mm-hmm. mais mu nekk si ay histoire parce ñun loolu mooy suñu point fort ñun on veut nit ñi ay histoire mm-hmm. loo xamante nit ñi dañ koy dund si jàng également tamit quoi et tamit ay xale la ñaa ah, ñu ci mel ay jaar dañ leen di protéger ba tey oui xale lañu de voilà mi ay xale lañu c'est des enfants je te jure ah. dañuy njool. rafet mat mat mat jigéen. mais c'est des bébés. voilà ay bébé lañu de voilà. donc dañu leen di protéger également quoi. il faut les protéger ah il faut les protéger donc bi ma laajtee lan mooy karma 45000 personnes m'ont donné la définition comme quoi tout le monde regarde. Mmh. c'est que le sénégalais est très averti. maanaam télé bu fay sax téléspectateurs yi xam nañu programme bi daw ci biir c'est-à-dire 45000 borom xam-xam yónnee nañ ma définition. kooku karma ah revers de la médaille genre retour des faits ah j'ai reçu tellement de message euh, concernant la définition karma la notion de karma est intimement liée à celle de la réincarnation et de perfection voilà mhm. ñoom Victor Hugo ah ñoom ñoom ñoom ñoom Baudelaire Ndiaye mhm. ñoom Victor Hugo Mboup ñoom ñëpp daal ñu ngi may bind karma définition bi la en français mais tey mën na la jox tamit benn benn baat wolof a dégg ci olof. karma rek maanaam karma wala nga koj ma. karma. donc war am ci biir série bi nag. koj ko lépp ci dégg-dégg la. fis koj ko koj ko. boobee merci waaw dans ah c'est dans loo xam ne da lay voilà boobee merci on est ba le 28 incha allah on va tous regarder euh, ci télévision Futur Média donc c'est une production Marodi euh, ñoom on les parce que actuellement ñu ngi def yu am solo euh, fii ci Sénégal juste en peut-être balaa ñu jàllale quelques messages d'anniversaire